salaamaaleykum sëñ bi na def. sa ciseau nga yor rek. salaamaaleykum. <laughs> na nga def yaay nit jàmm. nit nitu jàmm nit jàmm ca yàlla. nitu jàmm na nga def ak sa yu xonq. waaw ah. nitu jàmm ak lii sol lii xonq coro naan nitu jàmm. loolu kay war na ko firndeel après. d' abord maa ngi lay euh, d' boo xoolee li ma solo sax message la. message ay mu ñëwal ci message. te bi moom balaa nga koo firi bàyyi ma firi ko sama bopp. aywa mooy message bi boo xoolee rouge bi rouge bi alerte la. alerte te jàmm. moo tax ma sol weex li bopp bi euh, laafa bi quoi bonne bi. déer waaw ba tàmbali nuyoo ba ma ko mayee mu nuyoo di ñaanal soxna si tedd soxna Aïda Saliou yàgg fi te ànd ak wér mm-hmm. ak ñaari bunte bi soxna bu doon Saliou soxna Dia Saliou di mm-hmm. ñaanal sëñ mun Mbacké yàgg fi mboolem kilifa diine yi di kontaanaat ñëwaat fii euh, Walfadjri béti ajaratu béti ah, ma jigéen sama ndeyjoor sa maa ngi jàkkaarloog sama mbokk mi saa Ndiogu Omar bun Xataab ah borom jaas yi maa ngi lay bégee di la nuyu nitu jàmm. yow nitu jàmm nga de ah. pourquoi nga tuddee sa bopp nitu jàmm. effectivement bon loolu moom euh, dama ci. dañ la ko tuddee wala yaa ko tuddee sa bopp. man maa ko tuddee sama bopp parce que dafa am loo xamante ne ba ma xoolee wàllu musique gis mu yaatu lool. Hmm. gis ci anam bu ne gis naa ne daal tur jàmm. kon musique bi dafa am ay. Euh, euh, lépp lu ci ay lu ne rek bind naa ci. tànn naa ci ay jukki yoo xamante ne yu ci gën a fës. Mm. <laughs> def naa ci ay jukki bind ci bind boo xamante ne. Mm. maanaam ci la jëm. yow mbalax ngay rap ngay def wala euh, rap ngay def wala da ngay salaam lan ngay def yow. effectivement boo xoolee sax sama genre musical rab la. la ah. mais man soo xoolee li gën a ëpp doole ci sama sama musique mooy message bi. Mm. boo xoolee fond musical bi dama koy teg mais message bi moo ci ëpp doole. te message bi may jox askan bi hmm. qualité la boo xamante ne maanaam ku xamul bañ wax la qualité la loolu sa moom say yow say wax la yaa jàpp ni qualité la mën na bañ a nekk ci man qualité moo tax nag li ko xamul moo tax ma la koy leeral danaa ko déglu da koo xam da nga koo xamul moo tax ma koy leeral voilà euh, ñi ngi wax waa Rési yi ginnaaw euh, sawaay moom commencé naa tagg boppam naan li muy def qualité la message bu foor message bu ngand jay na boppam moom mi nga xam message bi daal yàlla na doon daane la ko. baa xam nga ne baa xam nga ne soxna nu muy solo takkaayu. Hmm. ay takkaayu rafet. waaw noonu la ñuy bind dafa am dafa am loolu lu ci nekk loo xam ne soo bindee ba noppi. Hmm. li tax ñu xeme mbind bi. Hmm. maanaam ko a takkal. foo dafa nekk ci écriture parce que écriture dafa nit. mën ngaa wax ak nit ki du jaay ab ab message la boo xam ne damaa bëgg askan bi xam ko rek. <laughs> Euh, ko wax. mu mu mu mu. wax nit ki dëgg. te doo ko gaañ. ndax boo xoolee ñetti xaaj la. waaw daa am loo xam ne dafa waxu. waaw ñëpp mën ko dégg am loo xam ne waxuwul. ndax soo ko waxee mën naa tas penc. waaw am loo am waxin boo ko war a waxee. Hmm. te loolu yëpp suñuy bind dañ koy sooraale dañ koy sóoraale. Ah. voilà donc nitu jàmm ginnaaw foofu nga toll ci wax yooyu nga xamante bi yëpp moom nga wax ñu daal di ànd ak ñi nga xamante ne bii ñooy waa Rési. voilà euh, saay dégg nañ da nga ne Idi Mburoog soow Idi Mburoog ton njombar tonk et cetera gën ñoo leeralal way effectivement boo xoolee fi réew mi toll dégg naa la fan maa ngi lay dégg barki démb xaw ma ngay wax di naan euh, jamono ji ci situation politique bi ñu nekk ñëpp dañuy nekk ay analyse di analyser ci wàllu politique te loolu noonu boo xoolee bindkat boo gis analyse dafay nekk ci moom maanaam jàngat mbir bari waa na fee yi nga xam ne day am ci yëngu-yëngu ci wàllu politique man sama néeg laay toog ne nii lay demee nii lay demee nii bu demee noonu hmm. parce que parce que mbind suñu borom da ci def ay secret da ngay xalaat da ngay méditer da ngay da ngay mën a seetantal loolu waaye réew mi fi mu toll ñëpp soxla jàmm. waaw dafa soxla dal dafa soxla jàmm. est-ce ñëpp a soxla jàmm. waaw ñëpp soxla jàmm mooy jàmm ay kenn xamoo ci ban bopp lay teere. li tax mooy ñëpp mooy ku am jàmm. ku yéene ñëpp jàmm di nga am jàmm. non boo nee ñëpp soxla jàmm te ñëpp gis nañ yoon wi nga xam ne mooy yoonu jàmm wi. Mhm. yoonu jàmm wi moom nit ñi gis nañ ko. mais mu mel ni yaa am na ñoo xam ne ñu ngi watat jëmale ci beneen yoon bu wuuteeg yoon woowu. effectivement est-ce que ñooñu li ñu nekk tuddee mën nga ko tuddee de bëgg nañ jàmm. waaw li ma li ma bëgg a njëkk a leeral sax mooy euh, woy bi dafa am suite logique par rapport dama njëkk bind ab lettre bataaxal. waaw président de la république njiiti réew mi. waaw maa ngi koy nuyu di nuyu opposants yi di nuyu waa réew mi yëpp. Mm-hmm. li tax ma waxee noonu mooy dama bind lettre bi mu tudd président Macky Salaam. président Macky Salaam Macky Salaam sàll bi laa jël def ko salaam. Mm-hmm. président Macky Sall ci biir lettre bi. Mhm. dama ci dama ko dafa am loo xam dama ko indi. muy laaj muy wàllu solution bi ko gën a jege. demal ci lettre bi ñu xool moo bindee lettre. waaw lettre bi dama dama koy dama koy farañ. Ah, fàcce ah. rek dama ko tënk parce que ñetti xaaj laa ko def. Mhm. dama dama ko fàttali li nga xam ne démb la. waaw tënkal ñu ko kay wala bayoo ko. moom laa lay wax dama ko woy mais dama lay wax ma jàngat ko moo gën a tënk. parce que képp ku tàpp bu dem ci internet bi di nga ko gis. nii ma la ko defee nii moo gën. Ah, da nga koo fàtte lettre <laughs> boo xoolee chaque jour que Dieu damay bind texte. waaw ah, lii da nga koo waaw parce que li tax après bu ci ko farañ fàccee ci lay gën a leer. ndax li tax loolu. Hmm. message yu jàmm boo koy véhiculer. Hmm. fexeel ba askan bi ku nekk jot sa sëriñ ci loolu. xam lan moo ci wàll mu def ko. Hmm. maanaam en tant que jiitu réew c'est le père de la nation. moo yilif ñëpp. te yilif gi ma yilif sénégalais yi. fi mu toll nii réew mi moom mi yor gendarme yor police moom moo mën a dalal réew mi ci jàmm moom moo mën a xam ni solution bi nga xamante ni moo gën ci réew mi actuellement. Mm. mooy jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amul kenn du tal dala. Mm. li ñuy wax développement lépp ci biir jàmm la mën a am. léegi yi dama ko xaaj ni démb mm. président de la république bi ko suñu borom terale mu am benn parcours. boo xamante ne nga nekk directeur général. nekk premier ministre président de l' assemblée maanaam poste yi nga xamante ne cër la daraja yu dem ba nekk président de la république lépp nga xam ne occupé nga ko war ngaa mën a xalaat ne kon suñu borom teral na la loolu nga xam ne démb la teral gi mu la teral soo ñëwee tey nga xool gis ne ah man de am na loo xam ne suñ borom dem naa ba mu jox ma ko muy war naa xam ne war naa dawal yërmande yaatu dënn fexe ba xam ne am na fu ma jaar lépp loo xamante ne man ab njiitu réew moom war te ma njaboote ñëpp war naa mën di ko dégg ndax dégg nga te li nga xam ne mooy kumpa yàlla yi muy ëllëg kan mooy doon njiitu réew ak leneen na ko bàyyi loxo yàlla te lépp luy rafet mu def loolu maa ci ciy invité sénégalais yëpp ñu dem déglu président Macky Sall ñu ta tàppee internet ñu déglu woy bi woy la bu ama am am solo suite logique bi nag mooy Idi Ndiomborton parce que dañuy jël message yi nga xamante ne mooy wàllu kafre jàllale ay message ci biir delloosiwaat sénégalais ci jàmm lépp dafa centralisé maanaam ci tënk ci jàmm ak salaam. tënk nga pare bi. Ah, tënk naa ba noppi. <laughs> comprendre ci li ngay wax nii man li ngay li nga bëgg a wax laa comprendre. fu mu toll daal wax nga wax a wax ba delloowaat ma. waaye man comprendre na. li li li nga li nga war a comprendre rek mooy. Mm. dafa am delluwaay. delluwaay bi mooy ku dem ci woy bi. di nga gis farañ fàccee bi ci nekk ku dem ci way bi ku fi ne yow yaa ngi nii. waaw mënoo ñëw expliquer way bi nga bëgg ñu dellu ci way bi. moom laa lay wax di parce que way bi da ngaa war a xam lan moo ko tax a jóg. mais way bi mën nga ko yëkkati fii tuuti ñu am ci parole yi su ma su ma sañoon waaw su ma sañoon way di fàtte. fàtte la ko wóor na yàlla fàtte la way Idi Ndiamorton waaw. wala Ndiombar Idi Ndiombar Ton Idi Mburoog Sow. waaw ah. ah, Idi Ndiombar Ton Idi Mburoog beneen bi la ah. wax. na dëgg dama ko fàtte. léegi ko fàtte. wax na dëgg dama ko fàtte. wax na wax sax moom laa wax ko wax na dëgg ko fàtte. waaw Idi donc boo xoolee message bi lii Idi wàllu Idi. léegi maa ngi koy signalé ajaratu ma ne ko. j'ai comme l'impression bu ma lay déglu yaa ngi euh, imiter le gars là bitukulaay bi bitiku bitukulaay xanaa moom ngay voilà ci koor gi waaw. macha allah effectivement. loo xoolee même style boobu la. ay ay chronique la ñuy indi di waxtaan ci wàllu actualité. waaw ji chronique nag mënoo koo fàttaliku nag wala dëgg. chaque jour que jëfee fu mu toll nii. def def naa def naa def naa ma ma yoo lancé message. si boobu la naa ko def naa def naa def naa def naa def naa dama def benn. président Macky Sall. dialogue bi moo wala keneen ay bind yow da ngay. man maa koy bind après euh, sama réalisateur bi sama kii ñëw def clip bi sama beatmaker bi ñëw tëgg beat bi ñu def clip bi tourné ko. mais paroles yi yow la. mais waroon di fàtte nag parce que genre i mel nii buñ la laajee nit yi lay seetaan d'abord dootuñu sawarati sax pour dem di la xool suñ la laajee. loolu dëgg la waa ne li ci gën a am solo mooy mooy mooy message bi nga xamante ne. fu mu toll nii am na lu xew tey bind naa ci. te dafa war a génn lan moo xew maanaam tey xew-xew bi nga xamante ni wàllu procès bi. waaw ah. bind naa ko. léegi léegi loo ci bind yow. ci tey procès bind naa ko ba ko tuddee euh, Macky Dialogon. Ah. Macky. Dialogon ah. Dialogon. Macky Dialogon waaw aywa ñëwal ñu dégg. Macky Macky Dialogon boo leen ma mayee ma ma ma ma liiral leen. da nga koy ngeen am aperçu. Euh, ay waay waay mais bizarrement bindkat da daan mën a jàpp. waaw maanaam loo bind da ko war a téye. bu ngeen xamoon bu ngeen ñëwoon ba gis ñi may liggéeyee. li ngay liggéey xam nañ ko nelaw yeewam bind crayon nga yor boo bindee mais nag en waykat yi bu ah. ñu xalaatee dal dañuy dem noté ko fenn balaa ñu koy fàtte ah. léegi ay effectivement léegi anam li nga bind tey donc boo xoolee kadik na déglu ko rek balaa muy génn la kadik <laughs> Macky dialogue waaw président woote dialogue ma ne fii prip interview walla dialogue anticipé jur coow de jur coow wala débat rajo et télé. waaw prix interview wala dialogue anticipé jur coow wala débat rajo et télé président bul woote bokk di beddi sa jotaay di géey télé yi ma ci bëggoon fekkee boole alxasanaat géey mooy interview mu def ak Assane Gueye télé yi ma ci bëggoon fekkee boole alxasanaat géey maanaam fekkee ma ci boole laa def punchline donc mu ñëw fii ne yaa woote jàmm mhm. ci démocratie muslu ci démon neexul ci patron de presse pale ñu ne la démon léegi ñu jàngat waxtaan bi tënk ko ci ñaari ponk ki ñu ki ñu ki ñu beddi ne du bokk ak ki bëgg a bokk soxla lonk hmm? dina saf mitin président sa manin wane sa bilan ku gedd sa yaay moo sa yaay moo aaye xaaraan wàllu opposant ci discours am laa jël di ko jàngati noonu moo jëmmal moo jëmmal aéroport bi lay jaañ firi AIBD mooy alkaati du bàyyi dóor dànkaafu ñii manifester ma ne troisième mandat nii wii nii non la tontu jarul baab bu jotee Abdou Ndiaye woy boroom kër gi ci tubaab mooy boroom kër gi nee na waaw loolu laa juñ foofu. li mu wax rek. effectivement nga bi xam damay pare dafa wax te farañ fàccee pareegu ma boo xoolee fi ma ne fàttaliku ku bëgg a ma ne fàttaliku ku bëgg a jàmm di semer désordre ñi wax jàmm a gën troisième mandat def ko moo d'ordre nee na du wax ci wàllu justice euh, du ko paralyser am euh, am ñu tey xel ne baadu sa noppi day def effet. yedd ku jigi ah ne war nañoo saluer rafetlu dialogue bi di sóor galgal te pourtant tàmbalee féewale bloc bi. mais mais nga baal ma. Hmm. xam ne tey bu la woon ci play ba yow tey jii yëkkati kase jox la na léegi may da ngay am problème pour mën a doxal parce que dafa mel doo répété quoi. Ah, léegi boo xoolee samay texte yëpp samay woy maanaam man diggante bu gàtt dafa am benn urgence boo xam ne dafa taxaw sama kanam. te bëgg loo tax ma ñëw fii pour gars yi invité woo ma yaatal loolu muy lan muy réew mi faw ñu xool par rapport wàllu jàmm ci réew mi actualité bi. Hmm. ñu di ko topp ma di ko enregistré di ko bind di ko tasaare ñëpp àddina ñëpp jot. nga mokkal ko aussi da baax tamit. effectivement par exemple bu ñu pour ay yooyu bu ñu la joxee micro. macha te yow ñu ngi la laaj léegi saa mi ngi lay waxee waxal ma ma kii. dama leen bàyyi ba ngeen woo ma playback ba ma ñëw <laughs> su ma ñëwee di ngeen xam. non bon pour pour wax dëgg nag ah. Hmm. pour wax dëgg. wax dëgg yàlla du may répéter parce que du jour au jour damay bind du jour au jour damay bind actualité bi di ko topp pour wax dëgg da ngay bind nii parce mais li gën a am solo saa. saa njëgu li gën a am solo. léegi sa waa ji nga àndal moom. li gën a am solo dafa ah. nekk carrière am ci sa carrière. <laughs> kan la ci. sa waa ji sa carrière. Ah, moom moom moom moom. carrière am ci sa carrière la ko wékk wala. moom moom moom borom baax la. saa bu découragé. ma kii kay bu dee moom bu ma doon moom li ma jot a. saa bàyyi jàmm moom moom. <laughs> parce bu daggul dikk bu mu la découragé. day moom borom baax la ah. pour naa mën a ah, jàpp naa ni li ngay def lu intéressant la. effectivement kaf la bu làq dëgg comédie musicale quoi. mais tamit nga jë maanaam pour ñu wekk li ngay def yow il faut nga wekk ko aussi. Mm. daa jox sérieux li ngay def parce que sànq yaa ngi li ngay wax ci Macky Sall mm-hmm. loolu am na solo parce que nit ki adduna moom mm-hmm. nit ki ni say responsabilité toll noonu la say nattu di toll waaw maanaam kon da nga bëgg ni mi ngi ci kaw ak jaar-jaaram kon dafa war a muñ yi koy dal ci suuf ndax suñu borom teral na ko ba noppi am loolu message bu lii la mais yow mi ko bind boo ko mënul expliquer aussi tey ñi koy déglu duñ ko mën a comprendre aussi waaw explication bi rek man li mu ci bëgg rek mooy ñu xam ko léegi mooy ñu yow lii carrière nga ci bëgg a def ci li nga nekk. am na am na dafa am am na yëngu bu may def. Hmm. am na lu may yëngu. waaw mais li am solo dëgg dëgg dëgg dëgg. am na looy yëngu. waaw mais lii mais lii mais <laughs> lii. waaw waaw dama bëgg nga wax ma li ngay def looy def. damay yëngu ci wàllu njaay damay yëngu ci lu bëree bëri. commerçant nga. waaw kon da ngay commerce di def ci art. waaw mais li ci am solo dëgg dëgg. dëgg da ngay de. damay kañ nga commencé yàgg nga ci. yàgg naa ci yàgg naa ci léegi yow yow yow est ce que mi ngi lay indil dara yaa ngi ci am ay marché ay prestation yooyu def ak yooyu. bon boo xoolee boo xoolee am na boo boo xoolee euh, liggéey naa ak ay jamono parce que sensibilisation peste euh, jàngoro peste. waaw man ma def sensibilisation bi. wax dama ko bind. fayoon nañ ministre bi dégg ko yéemu. fay na la euh, effectivement. ministre ban la moo ko déglu woon. Euh, jamono mi ci Oumou Khayri Gaye Seck. Mhm. au temps. Euh, ban tamit maa gañoon aussi peste équine bi. ah ok ak. boobu loo bindoon boobu yéemu. troisième kii ah. sax. collectivité locale yi acte trois de décentralisation léegi boobu nga bindoon bu mu mën nga ñu cee ñamal. ak loolu yàgg na nag saa <laughs> yow ay ñamal la nga fi nekk di wax. maîtriser li ngay li ngay kii. waaw incha allah loolu leçon boobu jël naa ko mais leen laan li ñaan ngeen xam ko tamit te muy dëgg muy lan. Mm. gis nga par rapport ak message. Mm. dafa am solo message bi nga xamante ne moom laa bëgg di véhiculer ci wàllu euh, sama texte yi ma bind. Mm. su ma sañoon. ñu woo àddina ñu dem suivre message parce que soo xoolee texte bi. il faut nga koy capté parce que genre mel nii tey su fekkoon wax nga am na ñoo xam ne buñ la dégloo rek da nga leen di inspiré wala nga ne jox motivation à ce que ñu gaaw. léegi dañuy dem euh, ku bëgg xam li nga def yëpp day dem YouTube. nitu jàmm nitu jàmm effectivement. loolu la N I T O D I A M E su demee su ko tàppee dina gis euh, dina gis. samay samay samay samay clip samay son waaw nga xam na ngay dof dof mais mën nga communication hmm? parce que le fait que waxoo ko rek joxe seen YouTube dugal nga ci nit ñi kumpa lan nga wax nangoo wax li nga wax pour man sax amoo problème us jàpp de déedéet da nga bëgg a jaay li ngay def rek yow tu as compris jàpp dara <laughs> man yow tu as wax mu wax yëpp donc li mu def yëpp tu as compris parce que boo boo xoolee xam nga mbir waxaan naa ko maa ngi koy bàmbuwaat leen ko ñaan di ko ñaan sénégalais yëpp hmm. muy nañu xaar ni ni nga gis journal rappé bi ngay wax sànq comme genre bu mel noonu. Mm. chaque jour dinaa leen jox actualité di leen ko defal. di ah, da nga koy def au jour le jour au jour le jour def. mais yow waaw lii mën na war na war na mën a nekk parce que lu looy toog di wut inspiration wala di fent wala dara ci mais mais nitu jàmm da ngay jël ci fee yi nga gis ak wax yeeg yooyu nga transposé ko ci sa musique loolu ngay def non effectivement waaw ah, kon kañ loolu xoolee fee loolu amul fan yi am yëpp dama koy def Euh, di ci di ci dama dama ci def ab woy génne ko. comme ban boo xoolee euh, Idi Ñomborton bi dama ko dama ko liir rek mimee ko ñu clip ko ma ma ma ma jàll. su demee xasee dem rek ma. boo xamante ni mën nga ñu ko wax jot a bind yëpp benn. non bari na parce que su ma jëloon sama li ma leen mën a wax daal. yow sa bopp benn waaw benn boo jël su ma su ma jëlee sama su ma jëlee sama sama sama sama téléphone. li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax wàllu wàllu saaga. fu mu toll nii actuellement dama la jox benn déglu texte bi saaga. réew mi ñëpp dañoo yéemu ci wàllu saaga. son bi maa ngi ko tuddee saaga. saaga nga ko tuddee saaga. laa ko tuddee lance lance ji message. boo xamante ni Sénégalais yi tamit dama bëgg lu ci nekk ñu conscient ci. Mm. Euh, boo leen bëggee ma leeral leen ko. ba amul ay saaga rek. déedéet amul saaga. aywa lii saaga dëkkul fu mu jëm fu mu jóge la ju fu mu jóge la dëju mën na sabab fitna ay seytaan yi dafa lëndëm bàyyil saaga bàyyi bàyyil saaga bala ci tëccu di nga ko rëccu yaa ngi daggal fu gën a ñaaw fàtte sa daggit kenn bëggul ko la saaga te muy dëggit ma ne xanaa joxoo sa ndey cër ak sa baay bul xaawi sutura saaga xase xamadi wax wax sol ma ne ma ne wax ju solo mbubb yaramu neen la waay ñaaw làmmiñ caay-caay sa tolluwaay saaga tudd awra jëmee ci jàmbur wanal say baat sa pot de sàmbur bul doon bul doon màtt xamataal doon saxaar yal nañ yàlla musal ci ayibu bàkkaar làmmiñ sikkar baax wax kàddu yiw tax borom bi sàkk ko wax lu baax ci diw cër la bu doy waar te jël ñaari bunt jël bañ a gémmiñ mooy sa xunt balaa wax safaan na nga xelu xalaat kaddu bu naree ñaaw maanu noppiwaat saaga baaxu rafetul di sokki lu ne fitna ay xulla mun na mun na mun na dal fu ne premier couplet message message bi moo ci am solo saa seen temps la jeexee yéen ñaar ah, donc noonu la demee nitu jàmm xam naa ne euh, li nga fi wax yëpp am na solo. dinaa la yokk jàngale la yoon yi la ki lim fi wax yëpp am na solo. booy demee loo koy galaame. ci parce que vraiment tooñ na danaa yóbbu ci yoon. yow da bàyyi ba def soo ma signalee contrat woo ma concert ci ngay mën a xam. Eh. <laughs> nit jàmm donc di leen gërëm di leen sant bu baax a baax a baax a baax ci invitation bi di wax rek ne sénégalais yi nañu xaar nitu jàmm. Mm. par rapport ak actualité politique bi dinañ ci def ay rubriques yu am solo. Mm. di leen ko jox euh, ci clip. ci way ngeen mën koo taataan. te objectif bi yëpp jàmm la. di lancer président Macky Sall. Mm. li ma waxoon sànq di ko baamuwaat te yéen ngeen may farañ fàccaloo texte bi te texte yi bëri te mënu maa jàpp lépp muy lan muy na xam ne c'est le père de la nation na yaatal dënnam lépp loo xam ne day dalal réew mi ci jàmm ci opposition bi li mu wootee waxtaan ñoo ngi ko ci félicité di ko ci ndokkale bu mu toq ci loolu na woo ñëpp waxtaan xam ne moo njaboote ñëpp. yàlla na jàmm yàgg Sénégal Sénégal amiin yaa rabbi amiin euh, alaaji hmm? sa rubrique la tijjoo tëjoo ah, waaw bi macha allah euh, di wax ni ñu ngi leen nuyu mu nekkoon nitu jàmm. Mhm. Euh, mi nga xam ne maa ngi lay maa lay remercier di moom sa manager la sama manager mu tëdd mm, mu ngi tudd Abdoulaye Guèye merci Abdoulaye di di di nuyu sama bit beatmaker. ah kii sama ah. nijaay la ah, di nuyu sama beatmaker ah, di nuyu sama sama. <laughs> d'accord eh, nee naa la sa temps jeex na ngay nuyu. Bouba Kila nga baal ma Bouba Kila tamit maa ngi ko. Bouba Kila waaw Bouba Kila mooy sama beatmaker. Bouba Kila de Kila boobu yow na ko changé <laughs> Bouba Kila mooy lan. <laughs> jërëjëf Adja kon mbir mango. ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal eh, nitu jàmm ñu ngi lay eh, remercier bu baax a baax ci teewaay gi alaaji yow it li ngay nekk amati solo yow musique bi moom yaa ko téye sa loxo di ko def promotion Jara ya.